wajjë

No. الإسلام والإحسان بحرمة الصداق والبر جلي بالقراش والدفاق بأبي عثمان النارين وبعلي وابن سنين وابن في الدنيا لما أقرأ كل حين وقام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بخدمة العباس بخدمة وليكي بالعباس بخدمة المسلمين والمسلمين تلف دعائي بنورين بخدمة الخاتمين لغوتي ولرقيك وسلامتنا أمرنا والجواب كل سماح وأم الدنيا وضرب الكرام بأم كل زون وجاد النقام بيوسف خامل وغرمام وابن صاحب سلامتين وبرب العين ijaaba ma ذا jannatu niranu ade falfalu falfalu badele jannatu niranu ade falfalu falfalu badele أبي البرايا وشاعر أفمن كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب كذب كذب الذين من قبلهم فاتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فذاقهم الله فذاقهم الله فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر فأذاقهم الله الخزي كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن ولقد ضربنا للناس ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل في هذا القرآن من بكل مثل لعلهم يتذكرون ولقد تتقون مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان innaka mayit wa innakum mayituun summa innakum yowma alqiyaamati inda rabbikum taxtasimuun bismillahi rahmaan وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر لا النفس والروح فيه إيجاب بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى مطلع الفجر waaye bu ñu sañoon ala kulli xaal dañuy toog rek déglu te bi ñu ñëwee ak léegi lu ñu fi jot a dégg ah ku ko dégg ci jataay danga am yaqin bu baax ci jataay ba li olof di wax ne bu fi yemoon sax baax na ala kulli xaal kon yàlla na yàlla xeeb dolli gannaaw bi ñu nokkalee mbokk yi bu baax ci weer wu tedd wi ñu nekk waaye ci guddi gu tedd gi itam ñu nekk muy guddi laylatul qadr ñu ndokkeel ci mboolem kilifa yi daje ci jataay bi yépp di leen nuyu itam di leen ziyaar di leen jox seen wàccuwaay tàmbalee ko ci soxna su tedd soosu nga xam ne moo jógee léegi ci jataay bi di ko nuyu di ko ziyaar bu baax di ñaan ci barkeem yal na yàlla nangu jataay bi itam te barkeel ko beneen nuyoo bi ñu teg ko ci sunu loxo kilifa gi toog nii sunu wet di ko nuyu sang bi njaay di ko ziyaar itam ziyaarul imtis istimdaad di nuyu mboolem aima yi fi daje yëpp ak asatise yi ku ci nekk ñu jox ko wàccuwaayam waaye loolu yëpp rekk ñu jël ko teg ko ci sunu loxo way jur wu tedd wii nga xam ne mën nañu wax ne sababu jataay bi mën nañu wax ne moo ko jiite mu nekk koo xam ne kilifa gu rëy la ci biir kàrt bi waaye itam kilifa gu rëy la ci jumaa ji nga xam ne itam ci la ñu nekk di xaaj góor gi jam Fall di ko nuyu bu baax di ko ziar di ko jox itam wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla itam yàlla na yàlla taxawu ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ndax li mag ñi di wax ne benn nit ku sell ci quartier rek mën na defar quartier bi yépp mu amee ci taxawaay goo xam ne xawaayu uutu mag ñi la te loolu rek day na sant yàlla ndax tey am na quartier yoo xam ne boo fa demoon tey doo fa fekk guddi gu toll nii doo fa fekk sax ñuy màggal lenn lu aju ci wàllu yàlla waaye borom bi subhanahu dimbali na ko ba li ko ñor muy liggéey ak jaamu yàlla waaye di tàggat ndaw ñi ci wàll googu moo tax sànq wax naa ko ci jataay bi ñu jógee léegi mag ñi kenn amul seen feeñ ñu ngi ñaan mun Muntaxa Mbàkke yal na yàlla doole ko wér yal na fi yàgg lool te mu ànd ak wér ndax moo fi représenté sunu maam seexul xadiim te arab dafa wax ni li kulli makaalin maqaal barab bu nekk rek dafa am kàddu yi foo la jib kon moom la ñuy njëkk a ñaanal ci jataay bi yàlla na yàlla yàggal ko fi lool lool te mu ànd ak wér ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soo ko ñaanal mboolem xulafaa yi nekk ci réew mi yépp yal na yàlla dafa leen jàmm fa tabarakallahu lii tax ñoom fit ñemeñ di wax kilifa yu mel ni ñoo tax ndax sama digganteeg moom xëy na yu bare fàtte na ko yàlla daf ñu natt woon bi ñuy gën a nekk xale ñu yëngu ci spoor fi ñu doon yëngoo ci sport nag yàlla dogal na bés bu nekk bu ñu pare woon moo ma doon indi ba ci quartier bi fii xëy na yooyu yëpp fàtte na ko maanaam li ma bëgg a wax mooy ah waa quartier bi yëpp ñoo ko ameel ñan ak cant ak ngërëm di ko ñaanal yàlla yal na yàlla guddal ay fanam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa waaye itam yàlla defal ñu ko ñun ñëpp su ko defee kàddu yi di mën a gudd ni ñu ko waxee sànq rek bu ñu sañoon dañuy ñëw taataan ci kilifa yi déglu itam xasida yi ngi fiy wàcc waaye kàddu alquran bi nga xam ne moom lañuy dégg léegi nga xam ne fi mag ñi yegg tey ñun ñëpp ñu topp seen gannaaw alquran bi moo leen ko may inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam waaye wa yubashiru almuminina alladina yaamaluuna saalihat anna lahum ajran kabira yal nañu yàlla feel mag ñi léegi bi ñuy ñëw ci yoon bi maa ngi koy laaj benn mbokk doonte arwaaxu yonent yi alayhimu salaatu wasalaam kenn mënu leen dab waaye dafa am lu ma jaaxal tuuti damay ne est-ce que arwaaxu nitu yàlla yi ndax yonent ay nitu yàlla lañu ëppul doole yenn arwaaxu yonent yi li ma bëgg a wax mooy li ñuy tabax ci ay doomu aadama kenn xamul na mu toll kenn xamul nu mu tollu su ko defee wax dëgg yàlla mag ñi nekk ci réew yi ñi leen représenté yàlla yàlla bàyyi leen fii su ko defee fi ñuy daanale kàddu gi di ah barkeelu rekk ci guddi gi ndax guddi goo xam ne dafa toll tombek guddi aljuma damay jàpp lépp lu ci nit ñaan aju bu mu mën a doon borom bi subhanahu wa dina ko faj ndax bisu al di guddi aljuma bokk na ci ba yi nga xam ne dañuy dajale jëfu doomu aadama yëpp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu seet yi ci jullit ñi góorlu mu siñe ko yeneen yi ci nekk ay sofaan mu ñaan borom bi subhanahu wa ñu jéggal leen ñu soog a dajale jëf yooyu soog yóbbu ci miisaanul xasanaat muy lawhul mahfuz kon guddi gi di guddig laylatul qadr ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa li mu ci dëxëñ mu wax ne benn guddi googu ku ko màggal moo ëpp junniy weer yoo xam ne amul guddig laylatul qadr su ko defee li ci yàlla dëxëñ ci ay leer ak ci ay barakaat ci ay yiw yëpp yàlla nañ ko borom bi subhanahu wa taala boole defal yal nañu ko yàlla boolee defal yàlla bi bu mu nekk itam suñu mujjum màggal guddi guddim laylatul qadr yàlla nañ ko waaye at yu bare bare bare bare bare yàlla itam def jàmm ci quartier gi yàlla sàmm ñëpp aar ñëpp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa ñu ngi bëgg a guddal waaye itam kontaan rek macha allah fii ñu nekk nii dafa fees dell ak ay malaika ànd ak Jibril tanazzalu almalaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salaamun hiya hatta matla'i faj ba farajar di jot jabrail moo ngi fi ànd ak mboole malaaka yëpp wàcc ci kaw suuf kon fi ñu nekk nii lépp lu fa nit ñaan aaju bu mu mën a jàppal na yàlla dina ko nangu kon su ko defee rek yàlla na yàlla barkeel ñu ngi bëgg a guddal di jégal waat bu baax ci kàddu yi jaxasoo waaye bëgg nañu lool ndax lii dafa yàgg sunu kilifa di sunu soppee di sunu sëriñ Haji Imam Omar John wax naa ko sànq ci jotaay bële moo nekkoon xaritu xale yi lu ñu am rek mu ñëw teew noonu la nekkoon sunu wëllëre way jur gii di Haji Jam nga xam ne guddi gi at bu nekk daf ko doon teewee te kóllëre li ci olof wax rek moo ci nekk gannaaw lay féete te dañ koy doxal kon su ko defee sëriñ bi ah ñu ngi jaarale ñaanal ñëpp jaarale ko ci yow ñaan yàlla rek yal na yàlla defal ñëpp jàmm yal na yàlla defal ñëpp xasanatan fi dunya wa xasanatan fi alaxira wa qina adab annar asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bi muazaman inda rabbin la sharika lahu wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasadi faasa allasina xafasu ala siyam sahin bihi uqliqa babun lil iyam yarawna afdalil futurin fi lqubur wa fi lqiyamati min almuxnin kabir alhamdulilahi wa salla abada ala allasi bihi lana alhuda abada alhamdulilahi mujibisil xadar man xasana fadlan bi laylatil xadar asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sant yàlla di julli ci yonent bi sayduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di santati seexunaa Seex Ahmadu Bamba di delloo njukkal baabil muridiin maam Seex Ibrahima Fall di ñaan suñ boroom dolleenoo yërëm ñu di ko yalwaan te di ko dagaan sëriñ Mouhamadou taxa muy dolli fanam wi ak wéram gi buñ ko ñaanalee dana tàbbalaale mbooleem xalifa yépp rawatina réew mi waaye ñoo ngi siyaara bu baax kilifa yi teew ci jataay bi di ci jiital sunu kilifa gi bàyyi ko fi léegi muy soxna sooda mi ngi may wax léegi ne ma maam as lii rekk deew rek yaa ko mën am ca une ba léegi maa ngi wër waaye nag yow kenn daa xamul nu lay def kon noo ngi santaat ci teewaayam moom soxna Sooda moom Serigne Khadim awo Ba moom Cheikh Mouhamadoul Amine Bara boroom këram it mooy Serigne Bassirou Diakhaté di doomi soxna say moom Cheikh Mouhamadoul Amine baara kon doomam ji mu àndal di Serigne Khadim Diakhaté Serigne Mouhamadoul Amine Bara mooy waajuram mooy maamam ñaari yoon ka feeñoo ka jëkk gane àddina Touba 1891 keroog ba mu ñëwee jamono la Serigne Touba dajale mag ñi ne kenn ku nekk waxal la nga bëgg ma defal la ko gan gi ëndaa leen ngërëm ni kookaay Cheikh Ahmadul Amin Baara noo ngi siyaare bu baax a baax a baax imam mi daaneel kàddu gi léegi tey ànd xool bu tooy lool nag ci Serigne Diassé mi nga xam ne moo fi bàyyi ko léegi ci indil ñu ay kimtaane ci biir kimtaane di alquranul karim nu ne la ko seexul xadim boobe maa ngi naan ko keroog masaalikul ji naan sunu ngont ma bi soxna si demee bay war a jël kàddu ci la mel ne dañ koo yebal mu ñëw yëkkati ba noppi soxna si door a jël te ku teew ci jataay bi sa xol tooy na alxuraan nag moo toll noonu sëñ naa wax na ko léegi alxuraan waaye ñu santaat sunu boroom ci guddi gi nga xam ne ci lañu ko jële ci baytul izza mu ñëw lawhil mahfuz muy guddi laylatul xadar moo tax nga dégg sëriñ bi naan ko yaa sahra rabbin karimin fii ka jaada lana bi laylatul xadri saatil fadli war raxadi kon weeru koor wi kat dafa mel ne moo làmboo nga ne lu rëy li tax nu am laylatul xadar yal na nu yàlla dollee fayal Seexul Xadiim noo ngi siyaarewaat bu baax Serigne Moustapha Ndiaye di kenn ci nun waaye di kenn ci Baye Jam waaye di kenn ci waa kër Serigne Darou Assane Ndiaye bu ñu nee Serigne Darou nag kuy gëstu yoonu murit taarix xam nga ne kiimtaan la woon ci mag ñi daroon borom Touba noo ngi koy siyaarewaat bu baax muy kilifa gu mag Baye Jam am na lu rëy ndax jëmm yi ku leen mën a dajale ci benn tànt yaakaar naa ne am nga lu rëy feggoog imam mii nga xam ne dañ koo miin jataayam xar kanamam ci tund wi ak li ko wër ci defar ak defare ak jariñe te loolu moo doon mission sayyiduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam moo tax ñii la yonent bi wax ne ala ulama warisatul anbiya ñii kat ñoo wuutu yonent yi ñoom boroom xam-xam yi rawatina nag boroom xam-xam yi jëfe seen xam-xam kon imaam fay kàddu yi gàtt na waaye rafet na bërki démb rek tudd mi amoon kër bay alhaaji amar kero bi mu tuddee ba noppi wax ci ñun loo xam ne xam naa ne lépp ci moom la nekk waaye yaram ak xam-xamam ak bëggam lu baax rek moo waral mu jël kàddu yi jëmale ko ci ñun waaye nag heure buñ ko gisee it sunu xel ak sunu xol du fàtte mukk imaam jonn di ñaan yàlla dolli ko yërmande ak njëggal ci barkeem ngëneeli guddi gi imaam jonn ku dugg fii xam nga ne kenn la woon fii fii da ko daan fanaane ak ñun guddi gi ba mu jeex kon yal yàlla defal ko fa mu nekk ca barsàqul muhammadiya yi yiwu juddoo ci guddi ya jëkkoon ya mu fekke ak yi wéy ginnaawam yépp yal bu ko ci kenn ëppale ci barke Cheikhul di santaan bokki Baye Jam yépp nag waaye di sant jëmm ji nga xam ne mi ngi ma koy présenté léegi moom it di kilifa ci koñ bi Baye Jam kilifa gi nga dendal di délégué moom ci koñ bi di kilifa moom it ñu ngi ko joxaat wàccuwaayam di ko ñaanalaat teewaay bii mu doon teewaay ba gën ci nun ñëpp mu doon pajuk aajo yi suñu jàngoroy biir ak bitti ci barki Seexul di siyaare bokke Baye Jam yëpp nag rawatina ñi bàyyi ko ngumba ngeewul keroog ban teewee ca Sen TV wax nanu ne leeratul xadar gi yamatul rekk ci unité 26 waaye ñiy bàyyi xel laylatul xadar gi dafa bari kon noo ngi ñaan laylatul xadar gi fépp fu waay mën a bàyyi ko yëkkati ay jéego lu mu sori sori lépp yàlla aw yiw ci barkeb Seexul Xadim xam naa dañuy barkeelu rek lu gàtt ndax li olof di wax ne lu ñëpp bokk loo ca am mu doy te xam ngeen ne daanaka cate na waaye bàyyi jam mi ngi may dee léegi ne nanu bàyyiwaat xel ne bu baax nag heure bi bu masaa dem ba toll fii ñi sant siise ak kebe ak silla am na lu ñu leen di bëgg indil muy ay xéewal yoo xam ne nan ko bàyyi xel mu ñu tudde ko ab xëdd kon yooyu nan ko bàyyi xel bu baax a baax bu kenn jóg ah, di leen xamal ne nag am na ren lu fi ñëw loo xam ne sëriñ Mouhamadou Moustapha njaay mii moo àndaale ak moom tey képp ku ci sa bët tege danga texe damaa xam ne bu buñ ko teelee génne am na ñoo xam ne bu buñ ko gisee dem man maa ko door a teg sama bët ba ma ko dalee dégg ak tey muy tarjumaani jës bul xulóob tarjumaani jës bul xulóob mi ngi nii mu yor ku toog ci tànt bi da nga ci teg sa bët te yéen dégg ngeen bu baax li Seexul Xaddim wax ci tarjumaa ji moo tax kenn ci nun ñi mësu koo gis man de tey laa ko door a gis ana keneen ku ko mas a gis na yëkkati loxoom mi ngi mu yor nag te nee na moom la indi tey am na lu indi woon daaw jéeg ak daaw waaye nag ren moom yaakaar naa ne bokk yi mu ne ma nag man mii la ko jox ma wone ko moom daa am lu nu boole mbaa xam nga ne sëriñ Touba bi mu mu taalifee menal xaq ba noppi sama maam suñ ma rab solo la ko jox menal xaq boobee ku ñëwul ndaam du ko gis menal xaq jaaxal xaq keroog ba mu ko taalifee la woo Serigne maam Serigne Mor Absolo ak sëñ maam Thierno ne leen won leen ko fere yi ku ci sa bët tege da nga texe sëñ Mor Absolo jël ko. ak maam Thierno ñuy xar sàkkat wi xalifa bii moom ma ko nettali mag ñi kenn ku nekk naan gis naa ko ba ñu jàpp ni ñëpp gis nañ ko sëñ Mor Absa Lo jëlaat mbind ma indi ko Seexul Xadim ne ko Mbàkke am nañu yaakaar ne feri yëpp teg nañ ci seen bët mu ne ko Mamar dellu ta nga denc kayit woowu mu ne wëriñ di bëgg a dem mu ne ko Mamar mu dëpp mu ne ko ndax xam nga doolee mbind moomu sëñ Mamar ni dënd di ko déglu mu ne ko Mamar mu ne ko Mbàkke mu ne ameel ko xaq war koo fay nga woo ko ba mu ñëw nga war ko mbind mi tàggoo ngeen muy xasida ak minal xaq ku ci sa bët tegee sëñ Tuubaa texe nga kon bu ma ko joxee ma war koo wane kon am na lu muy misaal kon li may barkeelu rek bokk yi ay kàddu yu néew la jëm ci weer wi muy weer woo xam ne wu nu war a bàyyi xel la wu nu war a wormal la waaye wu nu war a jëkkante jëf ju rafet te la ak fi àdduna toll bokk yi nu war saa su nekk kenn ku nekk ci nun di gën a jekkalaat toogaayam xoolaat jikko yi xamaat ba xam nun nooy kan ngir nu gën a defarwaat bi nuy bëgg a waajal weeru kooru màgg wi daanaka nan ko waroon a waajale bokk yi xam ngeen ne des na des na lool te boo déggee ñuy waajal lu mel ne football wala làmb wala leneen ay weer yu bari lañ koy waajal te loolee daanaka bu dikkee nun du amal njariñ te sax mën naa am mu indil nu gàllankoor bokk yi xoolal weer wi li ci lëmu lépp ci yërmande yàlla ak njéggalug yàlla ak goreel ci sawara bàyyee la nag taqwaa di ragal yàlla bokk yi lu mel ni ñu di ko séntu muy ñëw ñu di ko séntu muy ñëw bokk yi ba weer woowa yàlla def na yegg ci ba woor ko ba mu toll fii nun ñëpp ñu war a amaat ak cant gu rëy goo xam ne yàlla rekk lañ ko jëmale ngir weeru màgg wi mënu indil weer wii la Seexul Xadim daan séntu daan ko wax wax ju rëy jë Seexul Xadim bu daan séntu weer wi ñi ko déggul dañuy defe ne daa am sërif bu muy séntu day waajalaat ay bernde yeesalaat kër gi ba woo maam si Ibrahima Fall ne ko damay bëgg a am gan bu ñëwee nag ma ko teeru te teralal ma ko mooy ndogu yi nga gis tey sëriñ am ni Modou Mbenda Fall jàmbaari Cheikh Ibrahima Fall jooju gis ngeen la muy daaneel ci ay gàtt yal ko fi yàlla doolee yàggal ndigal la loo xam ne ci maam Cheikh Ibrahima Fall la ko sëriñ Touba jële muy ndogo yi ndax gan gi rekk ko moom ndax gan la goo xam ne seexul xaddim dana ko yow mbégte rek nga indi doo dañ mukk yow gan gi dinu indil mbégte mbégte mi mooy yërmande yàlla ji ci biir weer wi mbégte mi mooy njéggalug yàlla gi nekk ci biir weer wi mbégte mi mooy goreel ci sawara gi nekk ci weer wi waaye nag bàyyil ak taqwa muy ragal yàlla moo tax Seyxul Xaddim ne ko ak màgg ca boroom xam-xam ya aka màgg ca sunu boroom waaye aka màgg ca ña yàlla muazaman inda rabbin la sharika lahu wa inda ahli tuqa wal ilmi wa rashadi bokk yi bis bu set nga dégg walla nga gis loo xam ne ku la ne woon ñaar fukki at ci gannaaw dana am nga wedd ko ba ci fan yi ñu génn kuy gëstu internet xam ne di nga dégg lu nekk di nga gis lu nekk loo xam ne weeru sax kàddu yooyu wala jëf jooju wala doxalin wow wala jëflante jooju sax wërta am lu dul weeru koor rawatina nag saw ramadan al mubarak kon loolu lu muy tegtale ay jikko yu yàqu ay jikko yoo xam ne dafa dem ba yàqu te boroom xamut ne jikkoom yàqu na ba jéem a wëri lu yi réparé jikkoom jooju moo tax nag nuy war a waxtaane waat seexul xadim ak jikkoom joojee ni ko imaam waxe léegi nga xam ne ñoom du nu dañ mukk di doon ñoo xam ne ay royuwaay lañuy doon noo ngi siyaarawaat bu baax suñ bokki kuréelkat yi di leen beral seen siyaaru bopp ndax ñoom danoo bokk lu nuy dund ndax xasida yi rek la dund te xasida yi dafa dàq lépp waaw ñoo ngi siyaar jës bul murit di siyaar bu baax matlabu sifa yi ñu bokk fii dëkk tubaab Parcelles Assainies unité 21 ak unité 13 doon ay ndaw ñoo xam ne dama yàgg dama leen a yàgg a sopp yàgg bëgg seenum njàng ñoom ñii ma leen ma sawwat sunu kilifa gi fi jóge bu yàggul muy Serigne Galas Mbacke ibnu Cheikh Abdoul Karim Mbacke ibnu Cheikh Amadou Fadal ibnu Cheikhul Khadim Serigne Galas alo Serigne Galas Mbacke Sindidi yal na yàlla dolli ko njëggal ak yërmande te xalifaam bii ko wuutu di sëriñ Mouhamadou Boussa Dieng yàlla yàggal ko fi lool man am naa ci lu ma xam ci seen diggante ak sëñ Galas muy diggante bu yàgg lool ñoom ñii bi ñu door a tàmbali maa ngi fàttaliku ci kuréel gi dama ci daan bokk ñu toog bis kër sëñ Galas sax di répété loolu am na ay yoon kon ñoom jëwriñ santaa ñu ngi koy siyaara bu baax di ko jox nuyóob daara ji waaye jëwriñ bakka ñu ngi ko jox nu yóbbu matlabu sifaa yi waaye mu mel ne bokk yi imaam dafa wax léegi ne yonent yi seen maqaama seen cër ca seen borom kenn munta am cër bu tol noonu ba yàgg ma ne waaw walla wàll yi ñoom te sax wàll yi ci gaay yàlla yi la ñu bokk yonent yi ci gaay yàlla yi waa mu ne ndax wàll yi mënuñoo dem ba dab yonent yi walla ñu raw leen lu ne mën naa nekk gis nga doomu aadama ci farloom ci góor góorloom daw jëm ci boroomam te di ko sellal fu mu yëggul ci boroomam rek na xoolaat boppam Sayxul Xaddim nag loolu la mës a gëm sëriñ Touba ba mu nee bëreet ba mu nee bëreet di dox képp ku mas dégg ci taarix ku mas dégg ci sariyaatul islaam ngay liggéeykatu rasuulullahi seexul xadim teg na la bët te fas na yéene roppi la jëmm juñ naan anas biñ ko jox yonent bi ay atam bariwul amul kenn ku ñemee diir mbagg anas ci liggéeyal rasuulullahi sallallahu taala alayhi wa ba mu ne bëri la ne wajhal maqaami maqamal motada anasi fi xidmati nañ dellu ca xataaba xataaba xal bi lama allahu sallama ni boo duggee ba ca biir mi ngi ko taalif ama ay sasin atum junni ak ñetti téeméer ak fukk ak benn yamook 1893 ma ngi ko taalife ca Touba xasida yooyu yëpp ñoo bokk mel ne at di miimiya nuuniya taatiya daaliya xasida yooyu yëpp ñoo bokk mel ne at 1893 la ko Seyxul Xadim taalif waaye li ëpp ci xasida yi dafa mel ne xolam lay waxal alxalbu minni fil yawma qad zalima xataa baxal bi ma allahu sallama ni xal bi lahu fi xitaa bil jisma takraaru li annahu lil huda wa nuuru jarraaru bokk yi muy wax ne yow yàlla maa ngi lay ñaan ci liggéey bi may liggéeyal sa yonent bi di ki gën ci mbindeef yi maa ngi ciy bëgg cër bu tone ne ba anas amoon mu dox ab diir ne mujj naa mel ne anas mis la anas yéena ko déggal seen bopp mu dem ba yàgg mu ne jaawastu anas jéggi naa anas mu dem ba yàgg mu ne yajudu nii indal malikin muqtadir kullu waliyin kullu taqiyin kullu saxidin lil jinaani yabtadir xam nga loolu lu ko ko may ak ragal yàlla xam nga lu ko ko may ak bëggam rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam ba egg ci mahat mahabbatiyal muxtaara sayidana hubbil maqaani wa ahlina wal walada dammi wa ahli wa awlaali fidaahu lahu abdan xadima lahu muskaane li sanada xanaa xamoo ne bëgg rasulullahi ci la rawante ku la gën bëgg yonent bi raw na la te dootoo ko jot sëñ Bamba nee na xuus naa ci mbooleem géej waaye maa ngi labe ci géejug bëgg rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam yeggoon na ci buy suukar baraada munta xam cafka gi ciw làmmiñam waaye da koy suukar di ko suukar ba bu jëlee bant bu ko dugalee ci baraada bi bu yëkkatee mu liddi ko moo xam ne saf na waaye mënu koo xamee ci cafka ak làmmiñam ngir bëgg rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam tax mu ne bëggatuma kër bëggatuma alal bëggatuma doom bëgg gi ma waroon a bëgg loolu lépp bëgg rasulullahi gi far na ko mahat mahabbati yal muxtaara sayidana hubbin ma xaani wax alina wal walada tekke na dammi wa ahli wa awlaalil fidaahu lahu abdan xadima lahu muskaane sanada dammi sama deret wa ahli ak sama ñooñ wa awlaadi ak samay doom sëñ ma nee na jën naa lépp ñu ne ko Ahmadou noo koy def mu ne ko jox ko rasulullahi rek ngir bëgg mu bëgg ma bokk yi laaj leen ma lum ko jural xam ngeen lum ko jural dafa gis ne aqsamtu billahi inni li nabi abada xillun wa hibbun wa ma abaahu ya baahu giñ naa ci aji màgg ji Seyxul Xaadim nee na Muhammad Rasulullah mooy sama xarit mooy sama soppe li ma bëgg la bëgg li ma bëgg la bëgg li mu bëgg laa bëgg lu ma bañ bañ na ko lu ma bañ bañ na ko moom Muhammad Rasulullah ñu ne ko Ahmadu yonent yi bare na cent vingt quatre mille fa xaq du minal uloofi téeméeri junni ak ñaar fukki junni ak ñeent junni ñu tànn trois cent treize mursal leen am ñu ne trois cent quatorze am ñu ne trois cent quinze Seexul Xadim jàngal nañu ko ca tasawudu sixaar nañu trois cent treize la di ñetti téeméer ak fukk ak ñett ñu tànn ca ñaar fukk juróom indi ko ci alxuraan delloo ca tànn juróom di xuurul xas mi ñu delloo ca tànn kenn moo tax mu ne li kulli min jumlatil axyaari martabatu lakin ma ahmadal muxtaaru muxtaaru Seyxul Xadim nee na ña fa des ay yonent lañ waaye ki ñu tànn mooy ibnu abdallahi mu ne leen ki may wax na nabi naan moustapha xayril wara xaradi fi kulli seen wa ma baaxu abaahu mu ne ki may wax mooy mooy muhammad rasulullahi mooy sunu yonent nabinal Mustafa mooy ki nga xam ne moo gën ci luy dox te nee na gën gi mu gën ci luy dox sañ Bàmba nee na ëllëg yowmal xiyaam lay gën a bir moo tax lim ne giñ naa ne yonent bi mooy sama soppe mooy sama xarit lim bëgg laa bëgg li ma bëgg la bëgg aqsamtu billaahi inni li nabi abada xasi rek laxat jaakum di limaahin bashirin foofu la ko sëñ Tuubaa giñe waaye bokk yi kon yitteem moo ko may li mu am moom Seexul Xaddim bëggam rasulullahi bëggam alquran gi nga xam ne tey mbokk mi léegi lim ci yëkkati dooy na sëkk xoolal mbokk yi diggante sëriñ Touba ak alquran foo ko takk weesu nag nee na alquran mooy ak lekkam man ba ma gisee bayit woo xam ne benn naaru gànnaar moo ko laaj sëriñ tubaa ca gànnaar naar bi jàngal Serigne Moustapha moom sëñ Daam Abdourahmane Lo dafa posé question Serigne Touba. ne ko bi ngeen nekkee ci tukki bi teyoo kenn daawu la toggal daawuñu gis kenn koo xam ne moo leen duggali di la toggal daawuñu gis kenn ku lay taxaw mbàkke lan nga daan jëfandikoo doomu aadama munta ñàkk a lekk Seexu Xadim ne ko alxuraan laa daan lekk su ma jàngee ñaari isib wala isib wala nisif wala roba rek damay suur Seexul Xadim ba ma gisee bayit woowee nag ma xam ne sëriñ bi la mu wax ne baana li kulli man lahu wilaaya kaw ni li xaalixil baraal aaya moom daal kiimaanug yàlla la alxuraan bi doon jëfandikoo ba xiif moo tax mu wax ne qiraatuha kanzi wajaani wa izzati uniitu biha kaw ni la dallaahi saasiq far na wax ne jàng gi mu jàng alxuraan mooy koomam mooy ndam bi wurusam mooy trésoram mooy ay immeuble am mooy kaat kaatam moo tax buñ ko masaa indi lal ba gën a rafet moom Sayxul Xaddim mbaj ya gën a nooy la cay lal di wut kaamil alxuraan ya gën a rafet di ko ci jóor di tagg di ko wér di jël parfum yi misk ak sikki di ko ci sotti te naan ko yaa kitaabal karimi anta habibi wa xalili wa kunta xable tabibi naan kitaabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanjo bihi dunia oxra min al karbi ina tilawal kitaabal mulku wa huwa liman yabqi najaatal furku kitaabun كريم من كريم مكرم كفت بأعداء وزنب وسركا كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور يدير فطوبى لعبد يهبد الله ربه بترتيل القرآن عظيم يخي كربا بقي sëñ Bamba nee na xam ku dëkk Touba mooy ki jàng alxuraan te di ko seetantal fa Touba li abdin yahbudullaha rabbahu bi tartili quraanin asimin yaqi karba sëriñ bi sax wax na nanu ba wax nu ki war a dëkk tubaa mooy kan ndax adduhu kan taj alahu daara tuqaa wal ilmi wa diini wa daaril ittiqaa wa jannatan li zalikin muridi wa junnatan an hatikin maridi xam nga li tax ma ne sëriñ Muntaxa jar naa ñaanal mu yàgg fi bi di jub daa sant mboolem taalibe ne nañuy jàng Matlabul Fawzayni yaakaar naa xam ngeen ci dara xanaa xam ne Matlabul Fawzayni fu ñu ko jàng jàmm fayam ndax élection yi dégg ngeen dara yëngu ndax dégg ngeen élection yi dara yëngu loolu ba tey question la bu ñu war a xool ñu bari defoon nañ ne dëkk bi dana yëngu waaye ñëpp far di mbég mbégte moomu sax daa mel ne moo wàll ba ki toog tudd albasir basir googu daa mel ne waral na mbégte ma nga xam ne tey moom la sëñ ma mun Muntaxa ba foo ko fekk bëñam ya ngay njëkk a gis ilal Muntaxa ja day mel ne day dikkaat ba tey bokk yi kon li tax mu jàngoon la Matlabul nii loolee bëgg jàmm rek ko waral